ñu ngi ñaanal suñu Muntaxa Mbàkke suñu borom yàgg ko fi lool te kàttanal ko ñaanal suñu Omar Ndiaye xalifa Baye Cheikh Ndiaye suñu borom yàgg ko fi lool ba lépp la nga xamante ne naan na ko ngir liggéeyal ko baayam ju tedd ja yàlla kàttanal ko te taxawal ko ba matal loole tey dañ noonu la indiloon li nga xamante si moo waral gàmm ak njariñ yu ci nekk déglul ma wax la li waral guddi gàmmu déglul ma wax màggal guddi gàmmu jar na suuli laylatul mawlidi rasuulillaahi moo di guddi gàmmu fa ñun billaahi bamba juddug rasuulillaahi mooy fukki fan ak ñaar bi taxsimuhu màggal juddug rasuulu mooy ndey màggal yi dootu suulu taxsimuhu bi sunnati rasuuli la bamba wax ci jësbu dee ca xooli yaquudunaa li jannati naxiimi waaju ko màggal dootul dem jaxiimi fa may yuazim mawlidaa ji bamba moo nu xamal gàmbu sëriñ Masamba seex bamba ne ku gàmm ngir yonen ba incaa kenn du la xisaab sa bis ba falaa yuxaasabul qadaa la bamba waxoon sa jës bu gàmm bamba fa kullu man qada dara la bamba waxoon sa jës bu bul di wute bis ba bamba ne ku woote guddi gàmm di joxe ñam tey joxe alal ñey gàmmu walal bi xadri dërhami la bamba waxoon sa jës bu te nga gën sa jël baax bamba ne ku jox dërëm kuy gàmmu mel nga ne teewee nga badar tey rammu teewee nga xoney ni dellu teewee xaybar dimbali njool makka sa noon njakay lor ixiyaahu mawlidi basiir la bamba waxoon sa jës bu neex ma tuuba tayba yax mi yaala la bamba dellu wax sa jës bu del wax ma bëgg cheikhu bamba cheikh bamba ne dundal guddig rasuulu day taxa dund taxa wér ànd mbooloo fiihi sifaahu bi la bamba waxoon sa jës bu ku gàmmu yàlla leeral xolam ba laylatul mawlidin nabi xibaaram mu nee su ko xamal wolof ni yaaram xajul ci waxtaanu wolof ne Moustapha la gënee la gàmmu gënee màggal kilifa déglu ma wax la waaja njëkk gàmmu gannaaw rasuulillaahi moo ko sàmm abu xuseyni moo njëkk a feeñal gàmmu ci xatmu saalisuha moo ni ràmm borom tasawuf la bu dëkkoon irbel ba mel ni mbër bu rëy ba dëkkoon jurbel laylatul mawlidin bi lay fonkal ren ba déwén luñ sàkku jox ñuy màggal fawqa na gaa ya jihaat sa badar ba ca xunay ni darajaam aka bari taalif na ay mawlid yu dee fi gàmmu yuy xamle mbooti Moustapha ak gàmmu gis naa mënaan naan dërëm gu dem ci gàmmu doy na xasub dërham te moo lay ràmm jox la juróom ñaari dinaar ña te ña dootuñu tàbbi finnaar jox la juróom ñaari fukki junniy xasanaat far juróom ñaari fukki ubbi juróom ñaari fukki junniy buntu ñannaam mi xéewal ya borom di sant madd juróom ñaari buntu wonte balaa ak mbas sa kër di lenta te gan gu ñëw yoraale junniy barakaat suy dellu yóbbu ñaari junniy xasanaat te tëb bu nekkay alfun alfun xajja wa alfun xumratin wa alfun sawja moo junni biy jugee sa jigéenu urul ay ni ñu jox boroom gàmm ga duuna may ni yowmal suy dëkkee jaare Touba kër Moustapha Mbakke yu baati Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah di yëkkat nuyoo boobu boo xam ne mbooleem baat yi nga xam ne dafay tekki ak worma akuk yëkkati ñu ngi koy waddee baat yooyu di ko teg ci loxoom mu jottale ko ci mboolem mépp di sant bu baax comme ni ko sëriñ bi waxee sànq borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ñu may ñu fekkee woon ko daaw te fekkee ko ren ji di borom bi ñu yàggal la fekkee ay at yu bare bare bare bare bare tam ànd ak wér ak wérle ànd ak tawféex ak jariñu ci saaxir ak ci baatin barke borom guddi gu tedd gu màgg gi gannaaw loolu mbokk yi kenn ku nekk xam na ne ku wax guddi gàmmu du ñàkk nag lu waxtu wu xat-xat ñu njàmmat ci lenn ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax mooy boroom guddi gi te moo waral lépp tamit bu ñu waxee yonent bi salaatu wasalaam nag am njàngaleem dañ koy jaaree ci njàngaleem ci Xadiim tom biñ nara tënk tuuti rek xëy na waxtu wi xoj nañu waaye dari tom bi am solo am solo lool ba jullit ñi war xam bu baax waaye tamit jullit ñi warkaa dund bu baax ndax xam gi day firndeel dund gi mbir boo ko xamut doo ko mën a dund te dafa war ci bépp jullit tomb bi ñuy waxtaane mu xam ko ba noppi dund ko te mooy bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa war ci jullit bu nekk mu am cofeel gu jéggi dayo ak mbëggeel gu kawe njort akum xel aku xiyaas ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loola nag ngir ñu tënk ko dañuy jël ku ñu jege xool moom bëgg gi mu bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu cheikh naa cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu kon mun nañoo wax ne bëgg gi seexul xaddim bëggoon sangam bu tedd boobee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ab bind la ci képp koo xam ne danga di ab jullit waaye ab bind la ci képp koo xam ne danga di ab taalibe nekkat mankat nekke niib sama sëriñ jàppee woon yonent bi salaatu wasalaam nun laa war a jàppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bëgg mbokk yi dafa am solo lool ci dunduk doomu aadama gi bëgg suñ borom subhanahu moom moo ko njëkk digle daal wax ne ab jullit dafa war a bëgg yàlla waaye tamit bëgg yàlla googu da war a jaare ci njëkk bëgg yonenteem bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam mu wax ne moom yàlla bu fekkee ne dañoo bëgg yàlla bëgg ñu nañ bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni boo leen bëggee yàlla bëgg leen rek bëgg leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam te topp ko Seexul Xadiim mu ngi jàngale loolu ci ay mbindam yu baree baree bari di wax ne ku bëgg borom bi subhanahu wa bëgg la nee na na nga bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bëgg yàlla ñàkk bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënut a nekk rajaau xub billahi maabudi rasul safaatun maha xururin wa xuful inna mahabbatal ilahi la tanaal ila bi xasfi lmustafa babi nawal nee na yaakaar ak bëgg yàlla te jaarewoo ko ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na loola ak dof la ak waru la ku bëgg yàlla bëgg la da bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy tekki texeg jullit bi ndax mooy tekki nosug jullit bi waaye mooy tekki ngëmu jullit bi ndax lu waay mën a def te jaareewu ko ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolee mu def du ko jariñ dara waaye lu waay mën a def tamit ci aw safaan te bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam amaana suñ borom dina ko jéggal ci bëgg kooku ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndaxte benn saxaaba dafa musa ñëw si yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di jooy daan ne ko yow yonent bi yàlla bi de ni ma la bëggee xam naa ne fii la yem ndax yommal xiyaam du ma la gis ndax yow sa daraja fan toll ak fa la yàlla teg xëy na ajjana da ngay nekk ak man fi may nekk dina sore lool daal di jooy sallallahu alayhi wa sallam bu tedd ba teg ko ci bopp ba daan ne ko xanaa xamoo ni nit ki ak kam bëgg ëllëg ñooy bokk génn kër gu dëkk sa àjjana daan ne ñaari baaraam yu ndaw moo tax bëgg am na solo lool mbokk yi ndax bëgg dafay wommat nit ki ci ngir mu am ak texe ñëw na ci majmuul kubra bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moom moo ko dajale woon mu wax ne bokk na ci waxi sëriñ bi yim daan wax ma taabada mutaabidin bi ak aksara min at taxabubi ila awliya illahi taala li anna al mahabbata awliyaa illahi taala dalilun ala mahabbatillah azza wa mu ne amul genn jaamu bu nit ki di jaamu bu ëpp yiw bëgg gaa yàlla yi ndax bëgg gaa yàlla yi firndele na ci ne kooke yàlla da kaa bëgg ndax ku bëgg gaa yàlla yi yàlla bëgg la te gaa yàlla yi nag yaakaar naa seenu seenub sang walla seenub tàmbalekaay ma nga tàmbalee su yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bëgg yonent bi alayhi salaatu doy nag jaamu Sëriñ Tuubaa nag dangaa bëggoon bëgg koo xam ne daanaka mun naa wax ne jéggi na xiyaas loolu ay firnde yu bari la waaye bi ñu ciy wax rek nee na moom Sëriñ Tuubaa nee na moom li ko gën a neex li ko gën a neex maanaam ci jëmmam ji tudd gim tudd Muhammad tudd gi ko baayam tuddee Muhammad nee na loola bokk na ci li ko gën a neex xaala ibnu saxiixi alladi laa yaxmadu fi nafsihi si wasmihi Muhammadu nee na moom tudd gim tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam gi nga gi nga ko tuddee nee na loola moom moo ko gën a neex ci ab dundam dellu waxaat ne bëgg gi ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam egg na si maag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkoon ne dañoo ànd di dox ba ma gis ab dëkk bu ñaw bëgg a jam ci tànk yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seexul Xadiim nee na bëgg gi ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam egg na si jël sama bii tegal ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam dëgg jam la xam bi yonent bi alayhi salaatu wa beneen lex bi daal di jàll. ak mboolem luy dégg nag la wax ak mboolem loo xam ne nii dafay fette walla loo xam ne nii dafay gaañe dafa wax ne xaddi wiqaayatun li rijlil mustafa min sawkatin wa ma yudaahi aqraba sama lex nangu naa koo tegal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko ab dëgg naree jam wala bu ko ak jiit naree fet ma jël sama lex teg ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaar na waaye yëmut foofu de déggal mu ne man sama deret bu deretu yonent bi alayhi salaatu wasalaam naree tuuru sama deret na tuuru bu yonent bi salaatu wasalaam naree feebar mën naa feebar yonent bi alayhi salaatu wasalaam wér te loolu da ngaa ci ab mbindam ci ay barab yu bari waaye mun nañ ci jukki lenn rek ci yooyu ñu wax ne xub bii wa wuddii wa rudwaanii wa mahmadatii liman habaanii bimaa qad faaqa masnuuni danne jumlatu maali wa midaadi wa qalami hadiyatun lil mustafa baabi naa jumlatu maali wa midaadi ne na xubbi wa wuddi wa ridwaani wa mahmadati liman habaani bima qad faaqa masnuuni waxat ne xaniimati taxsiinu matil mut متبع دون اتغاثي فدة وذهبا وخنن أعلى البرايا وأقصاها وأكرمها هند الذي جاد لي بالميم والنون وخنن لمن كذاني ورواني وأطعمني يا راعتي شاكرا كالله والنون وخنن boo ko doon lim du jeex waxaat ne nafsi wa ahli wa awlaadi fidaa unduhu abdan xadiman muskaane nii sanada yooyu yëpp ay firndeleeg yuy tegtal ne bëgg gi mu bëggoon yonente bi alayhi salaatu wa salaam jéggi na doyal nee na sama bakkan ak sama ñoñ ak samay doom lépp jël naa ko jox ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam waxaat na ne ne bëgg gi ma bëgg yonente bi alayhi salaatu wa salaam far na bëgg gi baay di bëgg doom far na bëgg gi doom di bëgg baay far na bëgg gi nit di bëgg alal xam nga doomu aadama moom bokk na ci li mu bëgg gën a bëgg mooy alalam par par na bëgg gi nit ki bëgg lépp loo xam ne nii dafay dafay dafay laaj daraja wala dafay laaj dafay dafay laaj daraja ndax doomu aadama tey suñ borom da ngaa mooñaale dafa dafa dafa dafa bëgg ak yëkkatiw loolu ci natiiru doomu aadama la bokk suñ tubaa nee na bëgg gi ma bëgg yoon bi alayhi salaatu wasalaam par na bëgg gi nit di bëgg daraja nga xam ne moom maanaam darajaam darajaam moom da kay maanaam du feeñ ci kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu yaakaar naa firnde la ci xam nga mënoon naa ut tur wu nekk mu tuddee ko boppam waaye lu tax mu tànn turub xaadim xaadim xaadim xaadimu rasul mbindaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moonte mënoon naa soppeeb yonent bi de wala mu ne wala mu ne mu ne mu ne maanaam ki ki ki ki tagg yonent ba tey tamit tur yooyu ay waaye lu tax mu tànn tur ba gën a xeebu saa yu koy woo da kay wooyee ci tur yi gën a màgg di ko wax naan ko yow sama sang bi di ko wax naan ko yow kuñ tànn ki di ko wax naan ko yow ku yëkkatiku di ko wax naan ko yow ku màgg ki di ko wax naan ko yow mi nga xam ne amoo sikk di ko wax naan ko yow mi yow mi nga xam ne yow yaa gën a taaru luy taaru di ko wax naan ko yow mi nga xam ne nii képp ku jaaxle bu ñëwee si yow day yëkkati ko yow mi nga xam ne uuma lu dul yow yow mi nga xam ne yow rek yaa fi nekk yow mi nga xam ne yow rek yaa jariñu yow yow yow yow yow nga xam ne mboolem melokaan yiy firndeel ne maanaam nit dafa war a fonk yonent bi alayhi salaatu wa jox na ko ba mu jox tàkk ci misaal bëgg gi mu bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba eggoon na ci ne mus naa nekk sa njaarim am ci kenn koo xam ne da doon jaay rasool mooy rasool yooyu ñu def ci lal waa ji buy jaay rasool day ñëw ba tiim kër gu mag naan ay wa rasool ay wa rasool sëñ bi woolu ko jënd rasool mu delluwaat ba génnaat naan ay wa rasool sëñ bi woolu ko jënd mu delluwaat ba génnaat naan ay wa rasool sëñ bi woolu ko jënd benn mag daat kay daal daal di dab waa ji na ko yow lii ngay yuuxu sëñ bi di woo di jënd sëñ bi lii ngay jaay soxlawu si dara ndax rasool moom ay lal la te sëñ bi moom amutoon lal sëñ bi amutoon lal bañ na ko sax ba ne nawmi ibadatun rabbi la sharika lahu ay nelawam ay jaamu yàlla la daawut nelaw daawut nelaw amu ko ndax loolu li ci firnde mus naa fekk mus naa fekk waajuru waajuru sëñ Abdul Xaadir Mbàkke soxna Aminta Buso mu nekk sa làkk wa di ñaw ab ab parla mooy ay daggete saako yi mu koy ñaw mu ne mu ne ko Aminta looy def nii Aminta na ko sama tëdduwaay bi ne moo ko ko ma di ko ñaw sëñ bi na ko ah kon àdduna yaa ngi fiy xalaat ab tëdduwaay yaa ngi fiy xalaat ab tëdduwaay nga xam ne moom maanaam ay loolu moom daanaka moom moom moom nekkutoon nekkutoon ci am ki waaye waa ji naan ay warasool mu ne ko li nga koy woo naan ay rasool baatub rasool bi muy dégg rasool baatub rasool boobu la mënta muñ baatub rasool boobu moom la ku tedd gi mënta muñ boo demee si ay taggam ñim tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ngay gis ne moom uslu maanaam méthode bi muy taggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mboolem ñi daan tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam amut kenn ku koy taggee noonu amut kenn ku koy taggee noonu xëy na bu ñu ko doon topp ci xasida yi xëy na fii lañuy fanaan waaye nañ jël xasida gu mel nii xasida noonu ya mooy xattaaba da gis ne xasida gi sëñ bi ni mu ciy taggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam day day day day day day day kawe njort wala day jéggi dayo da gis ne da wax naan yaa mushibal xasani nu mushibal xasani nu mushibal nu mushibal xasani ñëwaat naan ko yaa waasi al nu waasi al xasani nu waasi al xasani nu waasi al xasani ñëwaat naan ko yaa taahiral xasani nu taahiral xasani nu taahiral xasani nga xam ne moom maanaam ni muy ni muy ni muy joxee baat yi wala ni mu koy waxee da ngay yëg ne moom maanaam moom miy wax lii am na jéggi-jéggi boo xam ne nii maanaam jéggi na doyo ñëwal ci lu mel ni asiru nga gis mu naan ko uxaatibuhu mi matxin wa huwa bi taybatin wa inni lahu jaarun ko asiru maanaam tagg gi may tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi wàqanteeg moom di ko tagg tam moom maa ngi koy tagg de waaye xam naa ne ka may tagg ma nga ma nga ma nga madinatul munawwara waaye nekk gi mu nekk madinatul munawwara bëgg gi ma ko bëgg tax na jege na ma ab dëkkaaleem la te kenn ku nekk xam na ne espace bu dox diggante maanaam euh, Sénégal ak madinatul munawwara ci wàllu distance espace bu sori la mais ci wàllu temps tamit xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam Sëñ Tuubaa mi ngi mi na ama saraa nga xam ne espace bi ay junni at la junniy at Euh, nga xam ne maanaam sëriñ bi ñuy dem ci géej gi junni at la ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett nga xam ne si la sëñ bi dem ci géej nga xam ne ak gàddaay ga diggante bi man na junni at ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett junni at na ngay tagg nit di ko wax ne ko yow maag yow ñoo dëkkaale maag yow ñoo nekk maag yow ñoo takkoo loolu gañ takkoo la ak gañ nekk la déedéet nekkuk bëgg la ak nekkuk jonjaale ak nekkuk maanaam takkaale nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy sori seexul xadim yëpp ci wàllu ay at yu bari li muy sori seexul xadim yëpp ci wàllu espace teewut seexul xadim moom dakaa jàppale woon ab dëkkaaleem rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi sama àndaale mooy téereb yàlla bi waaye ak sama sang bu tedd ba mi nga xam ne nii moom mooy moom mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na nag fi ñuy daanelee mooy liy tegtale bëgg gim bëgg yonent bi alayhi salaatu mooy xoolal njabootu Seexul Xadiim njabootam ngi xam nga nit dina am njaboot tuddee ko baayam ngir di ko xool di si yëg bànneex mbaa mu tuddee ko waajuram di ko xool di si yëg bànneex di ko xottali mu tuddee ko njëkkeem mbaa magam mbaa di ko xool di ko fàttali ko ngir loolu di si yëg bànneex waaye Seexul Xadiim moom loolu si yonent bi alayhi salaatu wa salaam la ko daan dal Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Mouhamadul Basir Cheikh Mahamadou Mourtada ñëpp rek boo daqee tur da ngay gis ne day dellu si sangam mu tedd ba alayhi salaatu wasalaam kon ni mu bëggee woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul bëgg ni moom waxaat na feneen ne yonent bi alayhi bëgg gi ma ko bëgg far na far na bëgg cafka cafka maanaam cafka nit ki bu dee lekk muy saf dara nit ki bu dee lekk muy saf dara mbaa miy naan muy saf dara mbaa muy def leneen di ci yëg bànneex nee na bànneex boobu nga di ci yëg bëgg gi ma bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam far na loolu. loolu am na benn naar bu gisoon mbind moomu ñëw di xool ba xam loola maanaam sëñ bi da wax nii ngir ay woy rek wala lu nekk ci moom la mu daa di attaaya ba noppi daa di jël benn kaas bi xorom ko ba mu wex xatt mu daa di jox sëñ bi ne ko addi yey sëñ naa Muhammad sëñ bi naan mu toogaat ba ci yàgg daa di attaayawaat kaay ko ba mu yox xat mu daal di jox sëñ daan na ko addi yo Muhammad sëñ bi naan toog as ndiir daan na ko kaas bu njëkk bi ak kaas bu mujj bi ma la jox ban moo ci am kaani ak ban moo ci am xorom sëñ bi na ko kon daa am kaani xorom man de li ma wax addi yo Seydina Muhammad rek moo tax ma naan ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. Eh, waxtaan wi tënku na waaye làmb na lu bare bare bare tey am na solo lool lool ndax ni sëriñ bi ni mu bëggee sangam bi mu yonte bi salaayu ab jàng nag wala ab soññee wala ab jajji la war a doon ci bépp murit nga natt sa bopp yow ndax ndax seen nga pëndub sëriñ bi ci nim bëggee sëriñam ndax yow bëggee nga ko sëñ bi loolu yaakaar naa ne kenn du ko ci mën a dab ndax moom ni ko sëñ Modou waxee doomam yëpp buñ koy sañee wax yonent bi sallallahu alayhi la leen tudde waaye dangay gis ne sëriñ bi bëgg gi nga xam ne bëgg na ko yonent bi sallallahu alayhi am na nag lu mu ko jural am na lu mu ko jural ci yu bare bari waaye buñ ci jëlee benn sëriñ bi wax ne malakanil quraanu tamliikan yadduum ne moom sunu borom moo ko jox alxuraan ne ko yaa ko moom moomoo ko tey nag bu subaa keneen di ko moom moom gu sax nga ko moom te loolu ci bëgg gi mu bëgg yonent bi salaay salaam ba di ko liggéeyal ci la ko amee mu doon loo xam ne dafa bari ay firnde xam nga sëñ Baye Sarr mi ñëpp xam sëñ Baye Sarr laata muy ñëw ci sëriñ bi dafa defoon di ku bari xam-xam ba tuddee boppam sal ma sixta laajal lu la neex foo dajeek moom rek bu toogee danaan salma sixta laajal lu la neex ma tontu la gaaw balaa maa dem muy wër di wër di ko bàkkoo ba ñëw njaareem ci kër sëñ bi wax nañ sëtam nee na ma bi muy ñëw maam Cheikh Fall la dajeel ci kër gi ne ko maam Cheikh Fall nuyoog moom mu ne ko sant ba mu ne ko faal maam Cheikh Fall ne ko kooku mu ne ko salma sixta nee na maam Cheikh daal di ree joxuñ ko fi sëñ bi keesu sëñ bi ne ko Salma Seck ngi foofu nee na bi mu ñëwee toog ci sëñ bi sëñ bi laajaat ko kooku maam mbokki fan mu ne ko Salma Seck sëñ bi daal di muuñ bind Fatiha la bind jox ko ne ko jàng ko sëñ bay Sarr nee na moom bi mu ko nettalee nee na bi ko sëñ bi joxee Fatiha bi araf yi day tëb mu koy jéem a jàng di ko jéem a jàng ba far nelaw fekk ko fa mu daldi nelaw. nee na ba waxtu julli jot sëñ bi bi mu jógee bay julli ji bi mu ko rombee da koo dóor tànk bi ne ko Babacar nee na mu daal dina bërit mu ne ko asalaatu xayru mina nawm nee na bi mu nee bërit daal dina ah, kon julli moom ay nelaw rekk la gën nee na fa la doxee moom sëñ bay Sarr li fi sëñ bi nekk daawul julli bi fi sëñ bi nekk bi fi sëñ bi jógee nag sañc lu na jàkka ja di julli am na keneen koo xam ne moom da doon bàkku di wax ne lu ko dalee ci raay bi ba ca géej ga maa fi man ñu ne ko demal njaarim am na ko fa nekk mu ñëw bi mu ñëwee daal ne ñett sëñ bi daal bu ma toogee mu tudd manto mbaa mu tudd naaru góor mbala mu tudd kaamil ma nangul ko bu mu ci wax rek mu ñëw fekk sëñ bi di tombal mag ñi di tomb di tomb ba yàgg kenn ne ko mbakke jox naa la sama manto ba mu daat ne sëñ Aliou juuf ne ko benn ngi noonu ma deseel ko ñaar te moom waxul dara daa wax loolu ci xelam ñuy demaat kenn ki ne ko mbàkke jox naa la sama naaru góor ba mu daan na ko sëñ Aliou Diouf nee ko ñaari ngi noonu mu des benn daan na bërit dugg ci biir indi alxuraan jox ko ko daan na ko jay ne ko diw mu daa di mu daa wuyu mu ne ko nanga def ak alxuraan mu ne ko mokkal ko lool te dégg ko nag mu ne sëñ bi ne ko iqra fatihatul kitab jàngal faatiha nee bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin xamatul li ci topp mokkalut sax faatiha far ndax sëñ bi moom gi moom alxuraan nit boo yoree maam yi ñu yar ci kër gi te mu miin la rekk bu réeree ba nga far ko bu gisee borom dala fay ba ci borom bi mu defee noonu mu daal di mel ni lu xaw a galfan sëñ bi ne ko noo def nit ku nit ku riir wuti safara nga war koo wàññi mu dem àjjana mu daal di jël kaamil bi tijj ko sëñ bi ne ko nekkul ci kàggu de nekkul ci kàggu de mu daal di mujj jébbalu sëriñ bi kon sëriñ bi moom gi nga xam ne moom na ko yëpp yi suñ borom amoon sëñ bay Jaxate da ko ne sang bu dut yow suñ borom ay yëfam la jox yow nag da koo bañ ba jëmmam la jox te nit ku nekk xam nga ne ku ne gën yëfam ku ne la nga am yaa ko gën boo ko ñàkkee mën nga ko wutiwaat ndax yaa ko am waaye yow boo fa jógee loolu du fa doonati dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci fi ñu daanelee ci ak mu jëm dafa dem ziyaare ji bàq ya daa di dëpp bi mu dëppee daa di wax ne aka neexoon ma dajeeg sama soppe yi am beneen riwaaye bu wax ne dafa ne ana kañ laay dajeeg sama soppe saxaaba yi ne ko ah yaa rasulullah ñun nag mu ne ko yéen samay saxaaba ngeen waaye samay soppe yi ñooñu dañ may gëm te duñ ma gis bëgg ma bëgg goo xam ne te dégg rek lañu am ci man daat ne am na ci ñoom am na ci ñoom koo xam ne gis ma pour mu séen ma ñu ne ko yoneen baa ngi nii rek mu gis ma nii rek jaral na ko joxe àdduna ak la ci biiram alalam lépp te léegi léegi sëñ Modou wax na fi ne sëriñ bi nee na jumlati maali wa midaadi wal xalam haddiyatun lil Moustapha baabi am nee na sëriñ bi wax na ne sama mboolem alal ak sama xalima gi may bindee ak daa gi ma koy def sax lépp jox naa ko yonent bi salaay salaam kon kooku yonent bi doon wax kan la laaj boobu. ngeen tontu ko jërë ngeen jëf ahousu billah bisimillah ina wàlli yàlla jërëjëf sëriñ Tuuba asalaamaaleykum ñu ngi ziyaar ñëpp ku nekk sa tur sa cant di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko fi te ay jëram di ñaanal sëriñ Amar Ndiaye yàlla yàggal ko fi te kattanal ko ak njabootu mbooleem Baay Cheikh Ndiaye dañoo am nuñ ci war a jàllale si lenn si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala yakum mutahama walam mukal sama bal faaqa sama min muntamin li aadami moom rasulullahi newul woon koo xam ne dafa rëy ni pëtëx dafa rëy ni pëtëx waaye tamit nekkutoon koo xam ne dafa dafa sew ruuj moom rasulullah yi nekkutoon koo xam ne ay lexam dafa guux li fi nekk kay mooy képp koo xam ne aska askanoo nga ci aadama moom rasulullah moo la féete kaw kaana yatuulu kulla man maa saahu fii kulli saman wa kaana waasialatan yadamaku bit tabasumi mam rasulullah yi nekkoon na koo xam ne képp koo xam ne ànd ak moom ànd ak moom di dox moom rasulullah yi moo lay sut te gàttul ba ne tugut te njoolul ba ne rugut waaye képp ko ànd ak moom di dox moom rasulullah moo lay sut te nekkoon na koo xam ne dafa yaatu dënn dëndoom dafa waatu woon loolu te nekkoon na koo xam ne ay reewam lu ci ëpp mooy day muuñ nekkutoon di ree di xaaxataay wa huwa jalilul xullabu bayaaduhu musarrabu bi humratin wa ahdabu wa anjalun suura moom rasulullah nekkoon na koo xam ne ku kawe la yàlla dakaa kaweloon te nekkoon na koo xam ne ab deram newul woon der bu weex lool ba ne fàng ab deram dafa nekkoon ab der boo xam ne weex la buñ jaxaseeg rouge mooy xonq weex buñ jaxaseeg xonq moom rasuulaay nekkoon na koo xam ne ay xefam xefam dafa gudd lool taaru loolu te ay bëtam dafa yaatu woon te ku rafet nu muy doxee la moom rasulullaay yaxtaru fi asnam tisaab kal barqi aw aw habbil xamaam wa daxkuhu yaju salaam ka suraji fi sulami moom rasulullah nekkoon na koo xam ne buy muuñ muuñ bu koy def day mel ni asamaan si dafa ñuul kuku lëndëm loolu melax bu leer nañ na si tàyyi nu muy leere moom bu muuñee baas bi buñ fayoon làmp yëpp moom bu muuñee day leer nañ ñi ab muuñam kase réewam nag bëñ yi rek bu ree bu réewee feeñ day mel ne ab làmp buñ taal fu lëndëm wa wajhu mudawwaru wa huwa xamiisul asharu wa huwa bahiijul asmaru murattilu takallumi moom rasulullaay nekkoon na koo xam ne kanamam dafa rong kanamam dafa rong te nekkoon na koo xam ne yëre yu sol dafa bëri couleur rafet loolu mel ne fleur yooyu noonu bëri nu muy rafetee moom rasulullaay ay yëreem noonu la meloon nekkoon na yëreem yi nekkoon na mu ngi mel ne ab ñuul buñ jaxaseeg zone nu muy rafetee moom yëre yi muy sol lu si ëpp noonu la doon mel te nekkoon na koo xam ne buy wax barul gaawul yéexul moom rasulullaay barul gaawul yéexul ku tey la ka annama sahabi fii xaddihi muhazabi wa kaana sabtal xasabi irnuhu suura sami moom rasulullaay nekkoon na koo xam ne ay lexam dafa mel ne kuñ def ndoxum sër day xonq loolu leer naññi te nekkoon na koo xam ne ay cëram dafa tolloo woon lépp a tolloo bakkanam dafa ñoŋ-ñoŋal dafa lii dafa jug moom bakkanam dafa jóg newul bakkan boo xam ne foo tollu di ko seen kaamilun usnul adahaju wa asnabun mu fallaju wa askalun mubtahiju walwaju maahil xumami moom rasulullah yi yoroon na ay nopp yu yam yoru woon yu nopp yu ndaw te yoru woon nopp yu rëy noppam dafa yemoon moom rasulullah yi noppam dafa yemoon te nekkoon na koo xam ne ay bañam bañam dafa am ay sacré yàlla yu tegaloo yu rafet lool ay bañam ay sacré yàlla am yu tegaloo te rafet lool moom rasulullah te nekkoon na koo xam ne kanamam dafa leer naññi ba nga xam ne nit lu tiit tiit lu am am njàqare bu gisee kanamu rasulullah léppam day deñ njàqare geeg lépp day deñ ngir ngir kanam gum gis rafetaay ba wa huwa akmalul wara xalxan wa xulxan zëhëra wal mislu xattu lam yura wala fi siyami moom rasulullaay moo gën mat képp ku yàlla bind moom rasulullaay moo ko gën a mat si jukko ak si bind na te maanaam kemam moroomam du fi am si lu romb te moroomam du fi am su luy ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah ni yàlla nañu fekkee déwén yàlla def na fekk nañ déwén fekk bu rafet fekk ñu rafet mooy fekk nañ ci ak njulit fekk nañ ci ak jub fekk nañ ci ak jaamu yàlla te loolu mooy fekkin bu rafet ñu ko fekk woon itam te fekk woon ci ak njub fekkuñ ci ak jaamu yàlla fekkuñ ci ak wér boo ko moom taamuñ ko ji gi yàlla defal daal sant nañu bu baax a baax a baax alhamdu wa shukru alhamdu nag yàlla moo ko moom shukru nag mbooloo bi mën nañ ko moom alhamdulillahi rabbil alamin mbooloo mi nga xam ne dañoo àndoon ak Baye Cheikh Ndiaye ak jël seeni njaboot jox ko Baye Cheikh Ndiaye jël njaboot jox ko njabootu Baye Cheikh Ndiaye waaye suñ boroom nañ ci defal du kaw seen jot waaye yaakaar nañ ni ko defagul seeni doom ak ña ko defut yaakaar naa ne wóote nañ bokkut loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax ndax yar mu yaru jubbanti bu jub yàlla la neex ndax alxuraan moo ñu wax ni inna allaha yahdi man yashaa yàlla mooy jubal ku ko su neex ñu nag li ñu wal mooy wa yaamul bil maarufi wa yanha anil munkari def lu baax tey digle lu baax te njaboot gi ñu ngi ci ñu ngi tàggat ay gone képp ku ngi tàggat yal na la yàlla sa borom defal lu kaw sa jot ku fi ànd sa njaboot sam ngir ñu tàggat ko yal na yàlla defal lu kaw sa jot bi jaay Cheikh Khadim ni ngërëm ñépp di sant ñëpp nii ñu ko fekkee ren yàlla nañ ko fekk waat déwén gàmm njariñul gàmmu yàlla suñu borom defal nu ko ndax suñu borom bu ñu ko defalee njariñul gàmmu lépp ab jataay la boo xam ne bii bi ñu ko doon wax tey cinq heures dina fi ñu fekk waaye li njariñul gàmm rek yàlla nañ ko suñu borom defal ñu ngi sant ñu jànkat xasida yi di fi teew di jàng sant di sant jànkati alxuraan yi di sant mboolem Kawlax mépp ndax baas bii soo ko xoolee doon ni passoire rek la doon ni tabax rek la li ñoo xamante ne si ñu nga dëkk Bangaal gis fi ñoo xam ne si ñu nga dëkk ba Jaliñ gis naa fi ñoo xam ne si ñu nga dëkk ba Mbir na te loolu nag cofeelu Baye Cheikh Ndiaye la cofeelu Serigne Touba gi leen fi andi yàlla nañ ci am lu ko wa si njot wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.